والصلاة والسلام على رسول الله يعلم الله أنني ذهبت كل مذهب وطفت حول كل طائفة ليهديني الله إلى كلمة أستطيع أن أعبر بها عما أشعر لهذا اللقاء الإسلامي الإنساني الأخوي السنغالي التي حقا قل أن يجد له نظير لقد اجتمعت إلى قوم مخت... إلى قوم مختلف أجناسهم في نيجيريا في موريتانيا في أماكن كثيرة ولكن حقا بهذا الحجم وبهذا الانضباط وبهذه المحبة الذي حتى يراق في شوارع شيء لا أستطيع أن أصل إلى كلمة يساعدني على أن أشكر هذا الجمال الرباني العظيم أه، نشكر محمد الأمين أخي أه، الذي سبب هذا اللقاء وبرهام سك وسنجنجاي وسراج الدين والشيخ مامور عيسى جوف أبو بكر إمسي كل هؤلاء الشباب بذلوا ما في وسعهم خدمة لله تبارك وتعالى وخدمة لدين الله وخدمة أيضا للطريقة التيجانية وخدمة للفيضة التيجانية فأنا أرحب بهم وأقبل وأقبل بكل اقتناع ما يقدمون للحضرة الإبراهيمية وإنسان هو الإنسان أحيانا هو الإنسان الكامل وأحيانا هو الإنسان الناقص فإذا لم يجمعهما فهو ليس بإنسان لا بد أن يكون يوما هو هكذا وأن تكون يوما هكذا حتى تجد ما معنى الكمال لله تبارك وتعالى. أوه. نيو nuyu sang yu tedd yëpp yi ñëw ci jotaay bi ñëw ci euh, lënkaloo bi ci yàlla ñëw ci itam ci <clears throat> daje bi nga xam ne kenn ci ñun fasu ko yàlla rek moo ko fas yàlla rek moo ko amal ndax kenn ci ñun ta amal yi yàlla nag buy fas dara dina wax lu tax mu fasal ñu ko ba ñu fee jógee wax na ci làmmiñu lamiñ ne seen mbir yëpp nag naa ko seen mbir yëpp mat yëpp taxaw na ni ngeen ko bëggee seen mbir yëpp dooleeku la comme ni ngeen ko bëggee ku ñëw ak dooleeku dooleeku nga ku ñëw bëgg a éeg éeg nga ku ñëw sàkk dara am nga ko incha allahu tabaraka wa taala parce que bés bii bés bii duuru Sénégalais yi ñoo mën a firi duuru Sénégalais yi ñoo ko mën a firi parce que ëpp nañu. bés bi bésu taarix la waaye du taarixu rek nit ñi daje pour bind taarix mais taarixun ruuxaaniyun rabbaaniyun ibrahimiyun aydan iradatun min allahi tabaraka wa taala kenn nañ ko suñu lu yàlla nëmb la lu lu ci ci ci mbaaxam lu yàlla nëmb ci ay mbóotam lu yàlla la itam euh, ci feeñal ko jaarale ko fa nga xam ne fa la ko war a jaarale ah ci Sénégal nit ñëpp yàgg nañoo dégg turam mais Cheikh Ibrahima itam ci Sénégal Sénégal yëpp itam yàgg na réeré kan mooy Cheikh Ibrahima waaye bés bu soobee yàlla itam na Sénégal tey dinañ xam Cheikh Ibrahima amul benn sikk ne Sénégal dinañ xam tey Cheikh Ibrahima kan mooy Sénégal ñu nuyu bu baax a baax euh, nuyu bu baax euh, Marème Faye maa euh, Marième fay Sall ci jotaayam bu tedd ak ci jëfam ji tedd yoo xam ne jëf na ko jëmale ko ci bis bi naka noonu ak mbooleem euh, euh, ministre bi mu ànd ak Diouf Sarr ak borom Moussa Sy ak kilifa yëpp mag yëpp borom place yëpp nga xam ne dëgg-dëgg li leen yàlla may fàttewuñ ci yàlla jiital nañ ci yàlla yàlla eh, jiital nañ si yàlla démb maa ngi wàcc si benn ADK julli fa ñaari ràkka mu ne jumaa jii ñoo ko tabax si ma ne ko yàlla may na leen waaye fàttewu leen yàlla waaye yéen tamit yàlla may na leen ma fàttewu leen yàlla ndax stade bi dañ koy njëkk a sancee kër ak delloo ci tariqa tijaan dëgg-dëgg loolu kenn mënu ko faral moo tax Sénégal dëgg-dëgg réew mu tedd la réew mu baax la réew mu kawe la réew mu neex la réew mu neex la ah. ndax boo demee ci yooyu di nga xam ne Sénégal yow neex la waaye neex-neex boobu lépp ak kawe googu yëpp yàlla dénk ko kenn ñu Sénégalais yi ne yéen a koy sàmmal seen bopp ñun Sénégal kenn ku nekk yàlla ngi def ci sa baat kóllëre sa diggante ak senegal nag nga koy sàmmi kóllëre googu nag mooy lii ñun ñëpp ñu fekk ko mu ngi lu baax mu ngi lu neex ñu kawee comme ni ñu ci dimbalantee fan yii parce que lii génn ci mbedd mi tey ku nga xam ne ne politique mu ñu ko génn ah ku ne xam na ne loo mënti def mënoo génn mbooloo mi mbooloo mi yàlla rek mu def mën a génn yàlla rek leen attan yàlla rek leen attan yàlla rek leen mën a def moo tax doomu aadama yàlla moo ko attan su fekkee doomu aadama sànni na loolu jébbalul yàlla ci yàlla moo ma attan moo mën a tee teg na boppam fa mu war a teg te du fa jëlee lu dul liñ jëlee fii tey ci jotaay bii ci Mouhamadou Lamine mii sai mi sohla garanti naa ko garanti naa ko bu rëy la ah du du du du baat bu ndaw wax na ne garanti naa ko ma xëy si seen xabiltu nangu naa nangu naa nangu naa sa garanti bon jotaay bi du jotaay ay feeñu waayu ay feeñu waayu yàlla la feeñu waayu yàlla la iraadatullahi la lu yàlla namal Sénégal la yal na ko Sénégal gu neex gu Sénégal gu neex gi Sénégal gu kawe gi Sénégal gu baax gi dëgg-dëgg yàlla di ko bàyyi rek te wonut nit ñu baax lañ nit ñu kawe lañ te naa leen sàmmal noonu ñu mel ak loolu ñu tànn pour ñoom man yàlla dinaa leen ko sàmmal moo tax Sénégal bu nekk war naa yëg à partir d'aujourd'hui ne man la yàlla dénk Sénégal Sénégal bu nekk war naa yëg loolu muy Sénégal bu góor muy Sénégal bu jigéen ñi nekk ci suñ kanam comme politicien yi comme pouvoir bi ak ak ga opposition bi ñun ñëpp ay Sénégalais rek lañ yoo xam ne yàlla dénk nañu Sénégal yàlla dénk nañu Sénégal bon nag koo xam ne jiitu na pour Sénégal yàlla ko tànn jiital ko ne ko jiital ma ñooñu waaye taxut nag dara war ko ci Sénégal loo xam ne warul Sénégalais bu nekk mooy Sénégalais bu nekk war na am jàmm Sénégalais bu nekk war naa yiw Sénégalais bu nekk war naa mbaax Sénégalais bu nekk war naa am fiti jàkkaarloog jamonoom ba jamonoom war naa am fiti mais sama jamono dama ko bëgg a dolli dama ko bëgg a dama bëgg a baaxal suma réew économiquement dama bëgg a baaxal suma réew socialement dama bëgg a baaxal suma réew scientifiquement dama bëgg a baaxal suma réew lépp lu ñu baaxal yow te loolu nag te te loolu nag xuloo ci mbedd mi du ko am du ko maye loolu saagante ci mbedd mi du ko maye. loolu am naa kattan mën naa génne nii ñu xulool ma du ko maye lu koy maye mooy xam teraanga ji ma yàlla may naka laa koy sàngee ci sama doom yi naka laa koy jàng sànnee ci génération bu ndaw bii di màgg si te ñoom lañ soxla ñu uutu Sénégal naka laay préparé génération boobu naka laa koy ñemelooyee liggéey naka laa koy ñemeloo boo liggéey di nga am sa liggéey dina am njëriñ naka laa koy wonee yoon pour mu mën a tabax réewam bu ëllëgee bu fi yógee itam ñu xam ne dañ fi bàyyi génération boo xam ne doo dañ fi bàyyi génération boo xam ne dañ ciy nekk di xuloo rek ak a saagawante ak a xëccante da xëccee yoo xam ne ah, ah jëmul fenn jëmul fenn ndax li ngay xëcc yëpp itam boo ca àggee ne àgg nga ci te defoo lu taxoon nga di ko gëm dëgg-dëgg mooy def mooy sa xëccoo bi amul benn njëriñ comme temps yi jàng Maroc si benn professeur bi ñuy jàngal mu ne muy waxtaan ak ñun ci ci Afrique mu ne ñun africains yi

mooy ki nga xam ne buy sàkku nga sàkku pour dina mën a defar loolu waaye sàkku rek pour ñëw nekk ak fi li fi ñu lay saaga rek nga bis wa dafoo dara yàlla may nañu wax naa ci sama benn interview ci jeune na nga gëm say institution lu dëggu la parce que nit ku civilisé moo koy def sama institution son président de la république la jeex na président de la république waxuma jiw président de la république laa wax dama ko war a respecté dama ko war a ñaanal dama ko war a encouragé dama ko war a defal lépp loo xam ne dina yëg ci xolam ne sama peuple yi ànd ak man bu ko defee ma gën a sawar pour ànd ak ñoom dimbale leen mën a liggéey liggéey boo xam ne dina feeñ waaye su fekkee dañuy xëccoo xëccoo xëccoo xëccoo te xamoo ñuy xëccoo sax surtout ah su fekkoon na xam nga ñuy xëccoo sax mu baax mais doomi jàmm yi ngay jël di ko xëccoo yi ñu leen di rey ci mbedd bi ñu leen di tëj ci kaso bi ñu leen di ñu leen di ñu leen di gaañ. allahu akbar kenn fekkewu ko te yow fekkewu ko doon keneen fekkewu te doon fekkewu ko dëgg dëgg booy wut war naa xam ne ñu ci war naa xam ne lii may wut oh. man ak sama doom ñoo ci war a jiitu ah comme Seyda Mariam benn bés ki nga andi di tukki ma ne ko Seyda Mariam noppalu sonn nga mu ne ma bu ma noppaloo suma xale yi ku ñuy wiit ku ñuy roy su fekkee damay noppalu. sama xale yi ma bëgg ñu màgg aw ah, topp ma bu ñu ma gis samay noppalu bon ku ñuy man la ñuy roy ci sama noflaay du ma noppalu feeg ma tut du ma ma tut donc bul noppalu feeg ma tut waaye nag nga xam li ngay ut lan la ak noo koy utee dëgg-dëgg boo ko utee uti tànga yonente nee na ut leen te bu leen ñaawal utin ut leen te bu leen ñaawal utin bu ngeen utee ñaawal leen seen utin yàlla dina leen may teraanga ngeen am li ngeen di wut waaye bu ngeen ko utee utee utin bu ñaaw bu ngeen demee ba àgg ca da ngeen di fàttali tax ngeen ko doon ut comme ni comme ni ko suñ professeur bi waxee woon te ut dem ba àgg fàttali nga doon ut nag ak euh, safaan bi rek lay indi bu boobaa xuloo ñu lay saagaat yi di la wax na ba du di jéem du xaaj mais nañ jéem a jàngaat nañ nañ jéem a jàngat suñu réseau nañ jéem a jàngat suñu réew nañ jéem a jàngat météo yi amee réew nañ jéem a xam nañ jéem a xam suñu doom nañ jéem a suñu suñu ñu jiite politiquement nañu jéem a jàngal jàngal boo xam ne génération ndaw bii di màgg si daf ciy jëriñu daf ciy jëriñu xam ne ñun Sénégal ñoo mun a développé suñu bopp jàmbur mënuñoo développé ñun Sénégal ñoo mun a amee suñu réew jàmbur mënuñoo amee. donc gannaaw ñoo ko mën a ame bon fexeel mu nekk nekkin boo xam ne dafay xam ne moom il est responsable ma euh, ëpp Macky ëpp ko responsabilité ci Sénégal c'est que mooy président de la République waaye nag Sénégalais la comme yow li ko war ci Sénégal pour mu baaxal ko loolu moo la war pour nga baaxal ko baaxalee ko fi la yàlla emal baaxalee ko su fekkee da ngay jaay cere da nga fi tolal cere ji baaxal ko boo koo jënd bëgg a jëndaat baaxalee ko su fekkee da ngay jaay da ngay jaay mburu ko baaxale jaay baaxale jënd nit bu boobaa yaa ngi jàppale ci liggéey boo xam ne dëgg-dëgg yaa ngi bokk ci ñuy tabax seen réew waaye boo koy tabaxee xuloo rek kii dafa bon kii sàcc la kii bi jógagoo jógagoo ni nga war a jógee pour sa réew nekk réew boo xam ne réew bu mat la réew bu civilisé la te réew mi réew mu yomb a defar la ndax ñaari fan yi ma gis population Dakar bii niñ def pour taxawee ko gan boo xam ne mi ngi jógee kaw rek yëg yëg yu yu yu yooyu boole leen boole waa kaw la boole waa Dakar yëg-yëg yu sell yooyu yëg-yëg yu baax yooyu yëg-yëg yu kawe yooyu mi ngi ci Sénégal bu nekk parce que lu tax parce que Sénégal dafa tànn diine dafa tàng diine bi mu tànnee diine bi mu tànnee lislaam moo ci gën a bëri ci Sénégal alhamdulilah rabbil alamin su ko defee jikkooy lislaam boobu ñu tànn dafay feeñ ci ñoom lislaam moo lay jàngal bëgganteel bëggal sa mbokk lislaam moo lay jàngal sa mbokk lislaam moo lay jàngal bu sa mbokk jaaxle àndal moom di dimbale dindi ko jaaxle boobu lislaam moo lay jàngal sa diggante sa mbokk jàmm moo ci war a jaar yooyu yëpp lislaam moo la koy jàngal keneen jàngalu la ko keneen ku lay jàngal def ci roof yoo xam ne bokku ci ah wilaaya xam naa ci dara xam naa ci dara bu baax a baax xam naa xam naa ci dara bu baax parce que parce que parce que damay vérifier livre yi damay vérifier taarix damay damay dugg fu nekk kon xam naa exactement li nga xam ne génération bu ndaw bi loolu lañ war a def góorgóorlu leen seetluwaat seen bopp ñun luy war a def luy war a def pour Sénégal Sénégal li muy war a defal defal nañu ko jàngal nañu yéeg na àgg nañ ci niveau yu kawe ci yàgg mais luñ ko war a delloo luñ ko luñ ko war a defal ndax mooy toog ci mbedd bi di xuloo ko sagante ci journaux yi saagante ci rajo yi sagante ci presse yi xastante wàññiwante ndax loolu la ñu war a fayee Sénégal vraiment loolu kenn waru ko fayee Sénégal dañ ko war a fay ah dañ war a fayee Sénégal mooy suñu yaay ñun ñëpp ay doomam lañ yaay buggut buggut buggut mag tooñ rakk buggut rakk tooñ mag yaay dafa bugg rakk ak mag yëpp ànd dimbalante pour tabax seen bopp pour tabax seen avenir kon ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañ Sénégal soxla na ay doomam mën nañoo liggéey mën nañoo liggéey parce que Sénégal intelligence bi nekk ci moom dëgg-dëgg dëgg intelligence bu kawee la mais dafa gisul dañ ko koo wonul fu mu ko fu mu ko fu mu ko utiliser pour mu dellu li njëriñ ci moom ah Sénégal su nekk ni booy dugg Sénégal da nga gis suuf yu bëree bëree bëree bëri kenn bayu te pourtant bay ci ci ci ci luy développer réew la bay ci luy dundal réew la bay ci luy joxe xaalis la ba ci démb ñaari xale dañu ñëw ca kër ga bi ñëwee ñu indil ma ñaari xaal mu ne ma xaal yi yow yaa moom mooy alu ah, tax mooy da nga wax ca tey ba ne nañ dem seeti suñ suuf si lu ñuy dencal nañ dem seeti suñ suuf si lu ñuy dencal mu ne man jàngalekat la eh, français ci école kii ne man jàngalekat français laa ci arab jàngalekati arab laa ci école bi

luñ gën a am ci suñ bopp yépp mooy am nañ suuf si yaatu yaatu am nañ ndox pourquoi suñ xale yi duñ leen jéem a euh, politiciens yi duñ leen jéem a ñemeloo loolu duñ leen jéem a ñemeloo liggéey ci seen suuf pour am dara pour pour pour liggéey seen réew pour tabax seen économie boo xam ne seen ñàkk moo leen ko tabaxal mais taale lu ñu wax kenn pour mu may leen ko te te lu mu nekk la lu mu am la xale boo ko joxee yaakaar rek xam na ne jox ko ko yaakaar dana dana

war nañ ko seetaat bu baax te bu ñu ko seetaatee danañ gis ne du loolu du loolu di boole nit ñi si mbedd yi xeexee sànnanteeg lakkante ay kër lakkante ay oto vraiment ma xaw ma lan la da nga ne bëgg Sénégal nga bëgg di lakk oto sénégalais Sénégal nga bëgg di lakk këri sénégalais bon ana sa bëgg Sénégal ah ana sa bëgg Sénégal il faut da nga bëgg Sénégal bëgg goo xam ne bëgg bu la bu ko defee li Sénégalais war a ameel moromam ñoom yëpp ñu dimbalante ku mën. dimbalante ci ci liggéey dimbaleen dimbalante ci njàng dimbalante ci tool yi dimbalante ci xam-xam yi dimbalante ci lu nekk dimbalante du dama ñëw wax ma dindi xaalis jox la non loolu du dimbale loolu du dimbale nit mais comme ni ko chinois yi waxee jàngal ma nu may nattee moo gën nga may ma nu euh, moo moo ma gënal nga may ma jéem bon ñi yéen tamit jàngal leen xale yi naka la ñuy moo gën ngeen leen di jàngal ay xulóoka xeexaka rayan ci mbe ci mbedd mi rek loolu baaxut loolu loolu baaxut dëgg dëgg baaxut ñu euh, ngi famille famille famille Dakar yu neex yii ci ñëpp ci nit ñëpp ci waa Dakar yëpp vraiment Dakar réewu teranga dëkku teranga la dëgg dëgg feeñal nañ ñu feeñalal nañ ñu ne dëkki teranga lañ mbedd mi booy dox di génn ñoom mooy mooy ënt yow yan ci sama xol tey du yow yaa ko ci def mais yàlla moo ko def yàlla laa bëgg kooku mooy sénégalais dafay bëgg pour yàlla dafay ànd ak yow pour yàlla daf lay dimbale pour yàlla nangul pour yàlla ah bu boobaa nag yàlla moom nga nangul seetal lu la yàlla di defal kenn du xam lan la comme jotaay yi am ñaari fan yi dëgg de ku ne xam ne ne yéene rek lañ ci am mais fi mu àgg di ko matal yëpp yàlla rek la yàlla rek la ku nekk def na ku nekk def na ku nekk def na ku nekk def na sa kemb kattan waaye li nga def yëpp ak sa kemb kattan yëpp bu ñu ko boole woon dëgg-dëgg mënut a def trois jours yi ah mënut a def trois jours yi ak ak ak ay dépense ak ay ajuwaayam waaye nag yàlla mi tax ngeen di def yàlla mu ne defal defal benn rek man ma defal la ko fukk defal benn taalal benn cin ne da nga kaa bëgg da nga bëgg a dugal ci nit ci fukki ci ci ci cin boobu boo yekkee rek téeméer bi yëpp lekk ba mu des parce que yàlla la yàlla ngay defal yàlla mooy mooy fayante yow bon gërëm gërëm bu baax euh, ñi fi Cheikh euh, ñi fi Baram Seck tudd yëpp ci seen kawe ci seen liggéey yu kawe ndax itam boo jógeewut fu kawe doo mën liggéey liggéey bu kawe nit ku kawe rek nit ku jógee fu kawe rek mooy liggéey fu kawe te dëgg-dëgg Sénégal yaakaar naa ne ñoom ñëpp ay ay ay ay cosaan lañ ay cosaan lañ ay nit yu kawe lañ parce que nit ñoo xam ne ñoo jur Cheikh Omar Tall nit ñoo xam ne ñoo jur ñoo jur Cheikh El Hadj Abdoulaye Niass nit ñoo xam ne ñoo jur Cheikh Bamba nit ñoo xam ne ñoo jur Cheikh Hadj Malick Sy dëgg-dëgg ñooñu nit ñu kawe lañ ah nit ñu àgg fu nekk lañ ah moo tax. nit ñu kawe yooyu nga xam ne ay sénégalaises ak sénégalais ñoo leen jur ñu def loo xam ne adduna bi yëpp nekk nañ sa ngay adduna bi par force parce que noonu la ndax boo nekk la yàlla yàlla nekkal la dëgg-dëgg euh, am na yoo xam ne jël leen nga dégg ko fii wax wax yoo xam ne kenn xamul wax yooyu lu muy tekki ah suñ maam yi dañoo defoon suñ maam yoo xamul ba xëy ñuy ay ay ay gis-gis yoo xam ne euh, gis-gis yu tardé la ah, gis-gis yu tardé la wé wé wérut parce que li sa maam boobu def démb jàkkaarloog tubaab yi li sa maam bo démb di xeex ak tubaab yi parce que nee ko lii nga fiy jàngale bu fi am te nee na dina fi am ñu nekk ci ñoom di difante ba ci lañu génnee Cheikh Bamba Sénégal ci lañu génnee El Hadj Abdoulaye Niass Sénégal ñu ci des ci lañ leen xatalee xatalee ba ñu war a defee mënuñ ko defee waaye terewul ñu sax rek ba alxuraan des ba fi jamono bi ba ku xam ci alxuraan bu tax toon ak génn démb boobu doo ko amee alxuraan tey ngay ñëw naan ñooñu dañoo nangam ak dañoo la mais c'est que sabab yow yaa leen ñun ñu ñu baax lañ ñun ñu yëkkatiku lañ ñun ñu liggéey lañ pour taarix di ñu liggéeyal taarix lañ mais liggéeyal ñu àddina yàlla lañ doon liggéeyal ci seen taarix moo tax yàlla fay leen tam ci fay boo xam ne dafay feeñ ba mel ni al fayda dafay tuuru kenn mënu si dara ah, parce que yàlla ko boppam yàlla ko tuural boppam bon ñu ñu ñu gërëm bu baax a baax euh, dakaar yëpp dëgg dëgg yàlla ndax kon nañuy teraanga gërëm Sénégal yëpp itam ci seen kaw président de la république ñu ngi koy gërëm ndax yii yii yëpp yii yëpp bu ko neexoon benn policier la mooy ay eh, jël yëpp tasaaroo mu yëpp neex na ko mu am yëpp bu ko neexutoon yii yëpp bu ko neexutoon benn gendarmerie moo ñu dogee ci yoon yi ñu leen allez retournez vous mais loolu yëpp bàyyi na ko mu am parce que xam na ne intérêt intérêt pour Sénégal la intérêt pour Sénégal yi la ndax mbooloo jullit mu daje fii eh, seetal mbooloo mu jullit mu yem nii rek. ci biir yi ci yàlla denc ñoo xam ne xamuñ leen waliyu yàlla ci ay waliyu yàlla ci toog yoo xam ne fuñ toog rek yàlla ñu si leen seen nox ci seen bëgg-bëgg ba pare nag waliyu yi ak waliyu yu feeñ yi waliyu yu feeñ yi la ñu feeñal leen ci la ne leen damentu la ko ñu garanti sàkku yàlla garanti nañu te dëgg la foofu mu ko doon waxee noonu la yàlla moo ñu garanti boppam bu taxutoon ak jotaay bi loolu bu ñu ko am bu ñu ko am wala jotaay bi ku permettre ci sa mu am dëgg-dëgg ku ko mat nga ku ko jar nga ku jar a ñaanal nga ku jar a ñaanal nga yàlla dimbale la yàlla taxawu la parce que sa taxawu ñoo gis njëriñam ci sa taxawaay ñoo gis njëriñam ci population bi waaye nag. yàlla rek a mat yàlla moo am li mat li mat sëkk yàlla rek moo ko am yàlla ñu yàlla dimbale dimbale ñu Sénégal yëkkati ñu Sénégal barkeelal ñu Sénégal ci zahir ak ci baatin yàlla ñu yàlla sàmmal suñuy dirigeant yi nga xam ne ñoo ñu amee politiquement na leen yàlla sàmm ñi nekk ci pouvoir bi ak ñi nekk ci position bi yëpp yàlla leen yàlla dimbale sàmm leen ba ñoom itam ñu gën a xam ne dëgg-dëgg problème bi du dem rek teg ci pouvoir am ko mais lan laay defee pouvoir bi loolu moo jaral laaj pouvoir bi may laaj waaw euh, euh, euh, lan euh, la koy defee loolu jar na kuy xëccu nguur tam nga bàyyi ci sa xel euh, euh, ci gannaaw loolu itam ñu ngi am ay bés yoo xam ne ñu ngi koy xaar ci Medina mooy baraam yooyu sañcoon Medina sañcoon jumaa ji bàyyi di muy sañ di muy bëgg a tabaxaat jumaa ji mu ne mu ngi oo yëpp ñu ñëw liggéey si waaye turandoom yi la bëgg ñu ñëw turandoom yi la bëgg ñu ñëw turandoom yi ñu ñëw mool yi sa mool yi ñu tabaxee jumaa yëpp ñoom kenn ñoo ko tabax te kenn fayu leen dara

ndax balaa yi kenn waru leen a fàtte loolu moo tax maa ngi ñaan monsieur le maire Kaolack euh, Ndiaye Rahma ah dañoo bëgg ah, ah actuel maire ak euh, futur maire euh, ñu may ñu yoon boobu ci buntu jumaa ji ñu tuddee ko barxaam yi ñu tuddee ko le barxaam ah ngir teral leen ko ngir màggalee leen ko ñu ngi ñaan yàlla yoolu bés boobu itam bu fekkee àgg nañ jàmm ñu ngi ñu ngi ñaan yàlla nga ñëw fekkee loolu parce que taarix la parce que taarix parce que fàttewuñ leen te duñ leen fàtte gannaaw loolu ñu ngi gërëm suñu rakk euh, Serigne Mbaye Thiam moom tamit ci ci taxawaay yu jekk yu rafet a rafet te bëggul mu feeñ daf koy def rek noonu ndax defalu ko yàlla la koy defal te gannaaw yaa ngi defal yàlla yàlla dina la nangul ñu ngi ñaan yàlla bu baax a baax euh, ah euh, ñu ngi ñaan yàlla bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yokk ko tawfiq yal na yàgg ko yal na yàlla yokk ko ndimbal naka noonu Pape Demba bi tey ak taxawaayam yu jekk te ñoom ñëpp dañuy liggéey rek te bëgguñ bëgguñ dara ya dañoo dañuy liggéey rek ngir yàlla dañuy liggéey rek ngir bàyyi dañuy liggéey rek pour pour seen nation nation bi am ak xamaguñ ñu koy liggéeyalee parce que nekk guñ euh, euh, peuple bu mag bu civilisé ñun peuple sous développement lañu ba léegi yàlla nañu yàlla may ñu àgg ci peuple boo xam ne dina yeewu dina xam dina nekk peuple bu civilisé yàlla nañu ko yàlla may loolu la ñuy ñaan yàlla salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. toog leen toog leen dañoo jàngoon ay kaamil imam imam imam may def xatmu bi dañoo jàngoon ay kaamil ñu ngi leen di fàttali ziyaara Medina Baye ziyaare bu mat bi xam te baaxoo di ko def ziyaare bi taalibe mooy ziyaare sëriñam ziyaare bi jàpp nañ ko incha allah le 24 décembre àjjuma di leen di fàttali tamit suba ci terrain ACAPES am na conférence bu mag bu ba am toog leen kon ñu jox mu xat mu kaamil yi nga xam ne daal sëriñ bi jàng nañ fi